fi mën a jëlee. xanaa ah! ñun askan bi mën a seetee les mesures de barrière. lesquelles. restez chez vous. toog leen seen kër. respectez port du masque. na ngeen takk masque yi. la distance entre un mètre. askan bi fépp fu ñu toll nañuy bàyyi distance bu tolloog benn mètre. lavez les mains régulièrement avec du savon. ma raxas suñu loxo ak saabu. utilisez le gel alcoolique. askan wi yéen a ko déggandoo dee leen moytu dajaloo bi